Hadi Nous ñu donc euh, fi nga xamantani mom modi keur Serigne Touba fi ci voilà arrivé Ablaye Wade mom lañu am président donc euh, l'ancien président de la République. voilà président Abdoulaye Wade moy genn noonu ci auto bi voilà escorté euh, vraiment escorté avec beaucoup de sécurité. waaw voilà kon ñu gisandoo ko noonu ki nga xamante ni moom moo di président Abdoulaye Wade agsi euh, na fii nga xamante ni la euh, xalif général des Mourides Serigne euh, Mouhamadou Mountakha Mbacké nekk fii ci Colobane ci fi nga xamante ni moom la ñuy wax kër Serigne Touba donc ñu gis ko noonu mu wàcc ci otom bi mu ngi nonu di genn mu ngi nonu di genn voilà président Abdoulaye Wade ngi nonu di genn ñu ngi koy gisandoo ñun ñep voilà. voilà donc euh, président Abdoulaye Wade mu ngi nonu di genn ci auto euh, euh, bi nga xamanteni mom moy 4x4 bu wex bi mu nek jamono ji ngir dem fi nga xamanteni mom moy fi khalife général des Mourides nek ngir waxtaan ak mom xeer bi xeer bi li nga xamante mom modi moo xeer bi xeer bi. lii bawul nag kay jàppal jàppal fii jàppal nii jàppal jàppal kii jàppal kii. voilà ñu ngi koy gisandoo noonu muy euh, président Abdoulaye Wade ak ambiance bi nga xamante ni euh, moom euh, fi la fekk nga moo di voilà mooy euh, fi nga xamante ni moom moo di Touba fii ci Colobane